Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum wa rahmatulah chers téléspectateurs de Salam Vision bienvenue dans votre émission préférée li nga xamante ni mooy les coulisses politiques ñu aman mbégte tey dellu soit ci beneen numéro les coulisses politiques fas yéene cee ak yéen station ni ñu koy waxee rek li xew ci biir gox yi ci biir goxaat yi ndax kenn ku ne xam na ni ñi ngi waajal li nga xam ne mooy élection local yi plus particulièrement ci biir Sénégal wërngal këpp ba tax tey ñu ñawaat fii nga xamante ni fii lañ tàmm di defee suñu émission li ñu tàmm ko nag mooy ñun dañu wane saa su ne ñun ay goney banlieue lañ ci banlieue bi lañ dëkk te banlieue bi chaque jour dafa am benn communication bu ñaaw bu ñu leen di adressé te adresse boobu lañ bëgg ñun mu dañ parce que ñun on n'est pas des bandits on n'est pas des agresseurs on n'est pas n'importe qui ay nit yu baax lañ ay nit yu yiw lañu am ay waajur yu baax am ay waajur yoo xamante ne dañ dañ leen a tànn kon bàyyi leen communication bu bon bi nga xamante ni ñu ngi koy adressé à travers la banlieue pour ouverture donc deuxième point fi ñuy ñëw mooy santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam santaat mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre à travers Salam Vision di am mbégte bu baax a baax li waral mbégte mi nag mooy saa su mooy yéen ak ñuy topp di ñu seetaan lépp li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg di seen yitte ñu ngi koy génne di ko jéem suñu kéemtulaay kattan di leen ko fësalal tey nag ñu am jotaay bu spécial li tax ma ne jotaay bu spécial la mooy dañu an dañu am invité bu spécial ki sa nom Moussa Top dinañ ko jox kàddu léegi mu wax mooy kan wax ki mu doon wax li nga xamante ni moom la fonction yi mu occupé waaye itam ñu waxtaan ci li nga xamante ni mooy localité bi ñu bokk muy la commune plus particulièrement la commune de Djidda Thiaroye kaw là où actuellement maire sortant bi fi nekk actuellement mooy Cheikh Dieng mais il pas mal de candidats qui sa préparent pour les élections locales de 2022 incha allahu rabi taala musa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalal tey ci biir jotaay bi nga xam ne moom lañ tuddee les coulisses politiques coulisses politiques nag bu ñu ko waxee mooy mbooleem ruq ruqaan yi nga xam ne mi ngi xew mhm. ci biir politique plus particulièrement nag gannaaw li ñu man mooy élection local yi liy xew ci biir élection local yi li ñuy def rek mooy dañ lay ñuy bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi nga xam ne ñoo suivre Salam Vision présenté wu ñu door a wéyal waxtaan bi macha allah waaw asalaamaaleykum euh, rahmatullah taala wa barakaatu mhm. maa ngi nuyu waa Salam di leen vraiment jaajëfal di leen encouragé aussi. si initiative bi ñuy am. ba mun a taxawal seen yi fu bopp. Mhm. muy dëggal Sangaré li nga wax ci wàll suñu dëkkuwaay muy banlieue. Mhm. ñu am bët bu ñuy xoolee. Mhm. te boo xoolee yàlla xam na ne banlieue lépp lu baax. lépp lu rafet. ci banlieue la soqe ko surtout kon li ngeen def nii yéen a ngi xeex loolu. muy wax bu ñaaw boobu. mais nag. Euh, ñu ko mag yi waxee rek wax bu ñaaw mhm. dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo loolu loolu moom vraiment ñu leen ci encouragé bu baax a baax a baax di ñaan mhm. aussi seen organe bi mhm. dem ba bokk ci organes yi gën a mag ci Sénégal bokk ci a mag dama bokk ci gën a mag ci àddina incha allah waaw parce que petit à petit l'oiseau fait son nid impératif dara jaroo man nag maa ngi euh, tudd Moussa Top du ma ne politicien la mais dama nekk homme politique bu ñu ne homme politique mooy ki nga xamante ne dafay nekk di daw ci soxla askan bi. Mhm. soxla cité bi. Mhm. ma nekk ci benn parti bu ñuy wax la convention citoyenne neneen. Mhm. Euh, ki ko jiite nekk la président Modou Gueye. ñu bokk ci benn coalition bu ñuy wax la coalition Benno Bokk Yaakaar. mu bokk ci mouvance présidentielle bi. yàlla dogal le président Modou Gueye di suñu président du parti. Euh, jiite coalition boobu. ñu war a dem nag ci ay élections le 23 janvier. voilà vraiment comme ni nga waxee rek si xoog ay nawleem. Mhm. loolu daal vraiment nekkoon li nga xamante ni aussi tey moo gën a sabab sax police bi. Mhm. ñu mën a waxtaan ci loolu gën a yaatal comme ni nga ko waxee sax si sa introduction. Mhm. ñu xam daal banlieue gërëñee la. banlieue du ay caaxaan. man nag. Euh, maa ngi occupé poste bu ñuy wax le poste de secrétaire permanent ci parti bi. Mhm. nekk di liggéey ak euh, l' actuel maire. Mhm. ma nekk agent municipal. Mhm. mais agent de volontaire la. de volontariat la. parce que depuis 2016 maa ngi ci état civil bi. vu que am naa formation état civil. Euh, ma ne sama askan vraiment lépp lu mu leen defal. lu mu war donc depuis 2016 maa ngi ci état civil bi. Mhm. du contrat moom fa téye du dana moom fa mais jaamu jaamu soxla askan bi. Mhm. parce que daa am benn mag bu mu sa wax mu ne. Mhm. yàlla ñun mënuñu koo defal dara lu ko lu mu gis. yàlla xam kañ lay fay. kii jaamu jaamu yàlla yi. surtout kon man ci wax boobu laa sukkandiku ba. mën a jël sama temps yëpp ak sama jot yëpp. def ko ci askanu jënd caaray kaw. surtout te vraiment gis naa si njariñ. du alal rek mooy njariñ mais connaissance dafa am solo te vraiment yóbbu na foo xamante ni sax sama njortu egg fool mm-hmm. voilà loolu daal la mënoon wax ci introduction mm-hmm. di ñaan émission bi ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim di allah Moussa mu am solo lool moo def introduction def présentation boo xamante ni bu mucc ayib la boo xam ne vraiment ku ko dégg itam dina xam ne vraiment wax nga fi nga féete wax nga fi nga bokk wax nga fi nga nekk waaye wax nga tam li nga xam ne moo la tax a jóg tey ji ba tey ji jotaay bi ñu man ko am donc pour ne pas monopoliser le temps et puis voilà gannaaw waxtu wi daf ñu daf ñu daf ñu daf ñu xaw a am fu ma bëggoon ñu tàmbalee ko Modou Gueye ñu xam ko mu doon koo xamante ni un responsable un homme mature un homme généreux un homme éducatif ñun def ko nawle quoi au fait parce que dañuy gis li muy dox socialement développement culturellement éducation lépp ñu ngi koy gis mu di ko mu di ko gérer ci gérance bu mucc ay boo xamante ni macha allah defe naa ni bu mbooleem ñi mu àndal ñëpp bu ñu meloon ni moom tey jii waxuma la waxuma la commune de Djeddah Thiaroye Kaw mais en grosso modo Sénégal day doon benn benn benn benn benn affaire bu doy waar boo xamante ni parce que on a besoin des hommes comme comme comme Modou ci générosité ci engagement ci ci ci lépp te gis nañ ko ci moom xam nañ ko te du jàmbur ci ñun parce que personnellement man dama part personnel dama yëkkat suma téléphone woo ko mu di ma wuyu day yëkkat téléphone am di ma woo ma di ko wuyu kon xam nañu Modou Gueye bu baax baax mais juste rek fi ma bëggoon ñu tàmbalee ko tey jii yaa ngi koy wax yaa ngi yaa ngi doon benn bénévolat ci biir commune bu Djiddah Thiaroye Kao ci biir mairie de Djiddah Thiaroye Kao mais tey jii bu ñu doon laaj parce que tey jii askan wi bëri na ñoo xam ne tey jii ñi ngi dégg commune ñi ngi dégg maire ñi dégg lépp mais xamuñu lu bëree bëri ci lu ñu war ni affaire bi demee mais tey jii bu ma lay laaj tey jii les principes les principaux fondamentaux fondamentaux de la décentralisation tey lan nga may tontu ci ci ci baax boobu. waaw. Euh, Sam ñu compétence compétence su compétence su euh, principe fondamentaux compétence laay bëgg a wax. Mhm. ci compétence yi lan nga ma ci indil. waaw xam nga. Euh, en 1996. parce que boobu dañu gis ni gouvernement bi ak askan bi dafa am seen diggante benn benn benn benn distance maanaam jégoo ñun seen askan. loolu moo indi ñu am ay mairie ay mairie de ville. ñuy daw ci loolu ay at ay at mais ñu dem ba ci biir tam ñu xam ne ba tey mairie de ville dañoo sori askan bi. ci la en 96 sous régime de président Diouf. ñu créé li ñuy wax ay mairie d' arrondissement mhm. ay commune d' arrondissement jamono yi ñuy wax euh, amatul parce que ak trois bi dindi na ko def ay commune de plein exercice mais avant euh, acte trois bi dañ defoon ay commune d' arrondissement ndax ñu gën a jege askan bi mhm. loolu moo waral gox bu nekk am am commune loolu état moo ko génnee ci dooleem mhm. ci li ay pouvoir am génne ko loolu la ñuy wax maanaam ñuy wax maire yi den démembrement wu état la. Mhm. état moo génne ci ay ci ay prérogatives jox ko communes mais nag loo gis même kër bu ñu koy tabax. Mhm. dañaan fondation. dañ naan nii dañ naan nii dañ naan ba keroog muy egg. fondation élévation. courage principes mhm. la. ok mu ci tudd ay quelque rek. xam nga temps bi dañuy xooj. surtout respect de. Euh, euh, respect bi nga xamante ni moom la ñuy wax euh, dignité nationale mm-hmm. maanaam li nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. loolu dafa bokk ci principe yi mm-hmm. respect voilà ko ci principe yi parce que benn dëkk mënu am ñaari gouvernement mënu am ñaari gendarmerie mënu am ñaari police donc loolu dafa bokk ci principe fondamentaux yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo tax ñu mën a créer li nga xamante ne moom la ñuy wax commune. ça fait partie de l'hiérarchie quoi en fait. voilà très bien. Mm-hmm. voilà loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy principe yi. Mm-hmm. voilà mooy respect de l' de l'unité nationale. Mm-hmm. kooku ci euh, ci principe la bokk. égale dignité des communes maanaam communes yëpp ñooy tolloo dayoo. commune bu am ay milliards ak commune bu am cent mille. ci budget ñoo tolloo ay dayoo. Mhm. parce que commune bi la ñuy respecté. Mhm. parce que ay nit ñoo fa nekk. surtout loolu la ñuy wax le respect l'égalité ñu ne ak la libre administration. Mhm. maanaam mairie yi dañu am seen indépendance bopp. surtout mais lépp day day delluwaat ci duñ génn cercle li tënk état. parce que état li mu génnee jox la maanaam kon yow mënoo jéggi li di def di def leneen donc mooy loolu mooy la libre administration. ci toujours si. Euh, compétence yi dama kii si euh, principe yi. Mhm. ñu am lu ñuy wax le transfert le transfert progressif. Mhm. voilà ñu wax aussi la répartition des compétences. Mhm. dafa bokk ci aussi entre les les trois ordres de communes. loolu dafa bokk tamit si principe yi. la principe de la coopération dafa bokk aussi ci principe yi. principe de la coopération ak de la solidarité loolu dafa bokk ci principe bi ba principe yi ñëwee nag mu am lu nga xamante ne état daf ko indiwaat. Mm-hmm. muy les les compétences transférées. Mm-hmm. mooy bu nekk ci au nombre de neuf. Mm-hmm. état dafa génnee ay ci ay ci ay mbiram. jox ko commune bi. maanaam par lu ñuy wax euh, domaine. dafa nekk compétence boo xamante ni commune moo koy gérer. Mm-hmm. éducation da cee bokk. Mm-hmm. santé mm-hmm. action sociale da cee bokk. jeunesse sport loisir da cee bokk. culture da cee bokk maanaam éclairage da cee bokk. ak yeneen ak yeneen. muy neuf domaines de compétence. kon yooyu day fekk ci domaine de compétence la wala ni ñu ko mën a tuddee compétence transférée ci ci ci loo boobu lay daal di bokk. maanaam état daf ko jël jox ko mairie am ci taxawaay bu ci war a taxaw. soo gisee état def loolu yëpp. boo notee rek ne ne par exemple bu ñu jëloon tey Sénégal ñu toll. ñu jël dàkku par ay communes. commune bu nekk ñu am lu ñu la dénk. ci wàllu santé. ci wàllu éducation. ci wàllu sport lépp. kon defe naa su ko commune yëpp déggee noonu xam ne patrimoine national la. ay nit ñoo fa nekk te nit ñi ñooy composé dëkk ñu def ko ay pàcc pàcc. donc tey bu santé bi doxee ci benn commune. sport bi dox. leneen ak leneen dox. bu dajee ko defe naa état bi li muy réagir du bari. kon dina am gafagaam loo xamante ni. dina ci mën a au moom fexe ba nit ñi di lekk fexe ba nit ñi di naan fexe ba nit ñi di dem di dikk. dana loo xamante ni euh, mairie attanu ko. Mm-hmm. maanaam ay defar ay tali. defar ay pont wala ay yenn affaire yu mag yooyu mhm. loolu du du compétence su maire yi mais yi ñu ko dénk def naa ko defee à quatre vingt bëri loolu moo gën a sabab ñu créé woon commune mhm. ba tuddee ko sax gën a jege askan bi mhm. mooy commune domaine yi nga xamante ni moom la état attribué les communes est-ce que tey jii mais Moussa est-ce que tey jii fi mu toll domaine yooyu noonu domaine de compétence yooyu noonu ngay wax noonu parce que lim nga ko te benn bu ci bu ñu ko xoolee euh, lu lu yell maanaa la lu jaadu la te li taxoon état créé ko mooy mooy commune bi askan wi maanaam comme maire bi dafay doon intermédiaire entre sa propre population et le gouvernement mhm. mais est-ce que tey jii yow boo seetloo yow en tant que bénévole par exemple boo xam ne tey jii yow yaa ngi ci biir ji da Thiaroye Kaw est-ce que tey jii tey ji mairie Djiddah Thiaroye Kaw bi nga nekk tey jii compétence yooyu noonu noonu nga lim est-ce que tey jii approche bi am na dëggantaan réellement à travers entre la commune et le ou bien la mairie. waaw xam nga euh, foofu la foofu la problème di amee toujours. Mm-hmm. je parle d'une manière générale aussi. tout à fait loolu la loolu moo tax suñu maire yi seen seen seen liggéey ak seen yenn mbir yu du fës. Mm-hmm. duñ ko gis. Mm-hmm. parce que maire yi dafa am nu mu tëddee. dafa am lu ñuy wax la conseil municipal. maanaam ñoomu ñooy la askan bi tànn. pour ñu toogal leen ci seen commune. tout à loolu ñu wax le conseil municipal. cette fois sax nañ ko parce que léegi maire bi ki nekk di liste moom mooy nekk mair effectivement d'office. Mm. moom day jàll d'office nekk maire. Mm. auparavant loolu ren lay door xew. loolu doog a xew mm. ci élection yi lay lay lay lay lay a amee mais avant lii di am avant lii di am. dañ daan daan na ay conseils municipaux def ay dem bu demee ba ci fi ñu siégé ci biir conseillers yooyu ñu génn ci kenn def ko muy nekk mair par voie élective mhm. voie élective maanaam ñu voté mhm. ci biir conseil ku bëgg a nekk maire yi sa loxo ñu dem vote ki ëppale ay voix nekk maire wala ñu dem par voie consensuelle mhm. maanaam ñu waxtaan ne ah gis nañ ni kat kii moo ëpp xëy na yaakaar wala kii moo ëpp maanaam jàng wala yenn yenn yenn relation yi wala boog côté politique moo raw ñu ne nañ ko jiital loolu côté consensus la ñu waxtaan bu juboo mu ñaar moo am quoi. Mm-hmm. dem vote walla ñu dem ci côté ci volet euh, consensuel. si mm-hmm. biir loolu aussi ñu génnee ci ay ay ay adjoint au maire. Mm-hmm. ça dépend ci taay bi nga xamante ne moom la ko conseil municipal bi am. tey su ma ñëwee ci jënd caare kaw léegi ñu ngi nekk à 76 conseillers. ci mandat bi ñu jëm. parce que boo xoolee inscription yi dafa yokk lim bi li mu euh, ñu war a parce que boo xoolee ren rek mine de rien mine de rien mine def nañ ay inscription toll si deux mille cinq cent dix y compris les transferts maa nga jógee ci benn localité yow ci beneen beneen localité mm-hmm. maa par exemple nga jógee Pikine Nord mm-hmm. daan fa voté toxu si par exemple jënd caare kaw nga transféré wu ñëw loolu ak ñi ñuy wax les primo votants ñi nga xamante ni. élection yi passé fekk ñu amaguñ 18 ans. mooy ñi am seen carte dañ ciy bind non inscrit. non inscrit ci liste électorale. Mhm. ñoom la ñuy wax les primo votants. ñoom mhm. bu ñu leen xaymaa ñoom ñëpp ci inscription yi ba ci paree mille nañ si 4510 donc loolu moo tax comme commune de Djidah Thiaroye bi xam ne fa laa bokk ci laa mën a wax. Mhm. comme exemple. 70 conseillers la mais ren dañuy a à 76 conseillers. ok loolu mooy conseil municipal bi. côté municipal bi nag ci la maire bi bokk. muy ñetti mbir yàlla conseil municipal yàlla bureau municipal yi nga xamante ni le maire ak ses adjoints ñoom ñoo koy composé ak li ñuy wax le maire en personne. conseil municipal bi moom organe délibérant la maam maire su bëggoon tabax benn benn affaire wala mu bëgg def benn. maanaam war a tabax benn affaire wala mu war a def benn projet xam ne dafa concerné commune bi nekk intérêt tamit lay population loolu maire mënu ci am accès mënu ko def tant que délibération conseil municipal bi nekkul te pour ñu mën a délibéré foog ñu am lu ñuy wax quorum maanaam bu ñu amee soixante seize conseillers foog ñi bëgg loolu jàll dañu war a ëpp ñi bañ maanaam dañu majorité mhm. absolue dañ koy am pour mën a permettre le maire mhm. muy def mhm. c'est c'est ses ses ses ses activité donc maire mënul def dara tant que le corps délibérant ñu le corps municipal jox ko ordre. ok le bureau ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy tënk réunion yi. Mhm. ñooy fixer ordre du jour ñoom aussi am nañ seen seen mot à dire. Mhm. su nekkee ne li ñuy wax dafa dafa concerner textes yi ak lois yi wala demande de représentant de mooy le préfet. Mhm. le sous-préfet bi nekk ci arrondissement boobu loolu ñoo composé conseil municipal bi mais fi muy sooxee euh, Sam du du bi xam nga si biir euh, euh, conseil municipal mm-hmm. on a le maire on a bureau municipal mais dafa am ay commission yoo xamante ni moom la ñu teg mm-hmm. par exemple waxoon naa fi léegi neuf compétence mm-hmm. mu am ay muy ay commission par exemple am na commission santé ñoom it ñu am seen légitimité parce que ñoom dañuy dem mm-hmm. vote ku bëgg a jiite commission santé nga yëkkati sa loxo. ok keneen yëkkati loxom kon droit de vote day am. kon commission bu ne dafa am dafa am dafa am. day am président am vice président am rapporteur. Mm-hmm. commission bu nekk am na commission religieuse. Mm-hmm. am na commission santé. am na commission éducation environnement. culture institut culture institut ba commission yi jeex. tout à fait commission bu nekk nag. su nekkee amul xëccoo. maanaam ñaar ñu ko bëgg. ki jë ki yëkkati loxoom kese moom day jàll d'office te day am légitimité parce que assemblée bi ñoo ko fal. ni ñu falee maire bi. fale ko day mel ni population bee ko fal. ñoo ko fal parce que ñi fa toog population bi. Mm-hmm. ñoom ñoo ko jox baat. pour mu gérer leen lépp loo xamante ne wàllu santé la. c'est vrai bu baax parce que commission yooyu ñoom ñooy tëgg budget en plus mois bi ñu nekk muy mois de décembre. Mm-hmm. ça tombe bien. Mm-hmm. actuellement ñu ngi si période defar ay budget tout à fait léegi commission bi da ngay dem sa ruq le président le vice président ak le rapporteur ñu toog tey même man mi nekkul conseil municipal sax naa ci bokk. Mm-hmm. commission boobu. conseil municipal bu nekk ci biir conseil bi amul amul poste de présidence wala euh, vice président rapporteur mun na bokk ci commission bu ko neex. Uh-huh. léegi ñoom bloc boobu ñooy liggéey ensemble nekkat wàllu santé bëgg nañ ci def lii. lii ak lii pour année deux mille vingt deux deux mille vingt trois budget bi kat ñu ngi ko xayma ci trente millions pour année bi yenn commission yi noonu yenn commission yi noonu ba commission yëpp mat léegi mu commission boo mooy ndey commission yi mooy finance moom moo ëmb commission yooyu yëpp surtout parce que boo yëpp ñëwee ñoom ñoo koy saytu mhm. parce que am euh, budget prévision la tout à fait du ci poste je sais dañ naan ah bon am nañ am nañ station am nañ ay banque am nañ lii vraiment ak lii ak lii ak lii suñ ko xaymaa war nañ mën a am cent mille ci at mi cent mille yi nag nii lañ koy séddalee commission santé kat dispatching bi door a ñëw mais nekk loo xam ci poche nekk non je sais des fois nga xayma un milliard doo recouvrer un milliard mm-hmm. parce que dina am exemple tey comme li fi amoon jamono yële passé covid bi mm-hmm. xam nga budget boobu munul munul munul nekk budget bu bu fiable bis bu ñu mën a téye nii mm-hmm. parce que am na gàllankoor les commissions yooyu bu ñu tënkee li ñuy tënk ba pare mm-hmm. ba ñu ko ba mu baax dañ koy soumettre le représentant de l' état mu xool su nekkee ne li ñu tënk nii ànd na ak yoon maanaam loi ak taxi yi mm-hmm. moom daf koy valider léegi kon bise boobu mën nañu nekk na en vigueur tout kon ni ñu waroon def waa commission santé am nañ commission am président bu légitime askan mi fal ko pour mu toog bu yore seen wàllu santé vraiment bu ñu bëggoon lu leer su ñu lu yomb bu ñu lu lu lu lu lu lu efficace budget bu nekk parce que budget différent ci mairie non non yi seen seen seen koppar public moo koy gérer par mandat la ñuy mën a di jot seen xaalis pour mën a di def li nga xamante ne moom liñ seq ak ak askan bi. maanaam mooy li leen askan bi dénk ñu war ci teg war ci liggéey. Mm-hmm. mais au lieu ñu jox commission yooyu seen indépendance. Mm-hmm. pour ñu mën a gérer li nga xamante ne moom mooy seen programme. Mm-hmm. non lépp day nekk ci loxo maire bi mooy xool li ka neex côté bu ko neexee. loolu mooy tax toujours li ñu waroon def du ñu am le résultat positif. Mm-hmm. maire bi dafa am autonomie boppam. Mm-hmm. sa maire moom c'est la personne morale. Mm-hmm. tout dafa am loo xamante ni maire mënu ko. te conseil bi municipal bi jox ko ndigal. kon maire am na moom it fu mu yem. bëgg naa tabax benn centre rek damay xëy tabax centre déedéet même ci domaine bi. wàllu suuf. la maire amul benn droit amul benn droit je je maanaam jël alalu askan bi. Mm-hmm. da ko jox benn nit à titre privé. loo xamante ne su ko jëlee ëllëg. Mm-hmm. au lieu mu jëriñ askan bi boppam lay jëriñ par exemple nga jël benn périmètre jox ko benn nit. Mm-hmm. mu def fa benn immeuble di ko loué kooku du ñu du du du. wàllu askan bi privé la quoi intérêt mais loo xamante ni par exemple fi ñu war a def état civil. maison communautaire. maison des jeunes de santé loolu xam nga dafa nekk loo xamante ne askan bi moo ko moom. Mm-hmm. moo tax ñi nga xam ne ay conseil lañu. Mm-hmm. vraiment bu ñuy délibéré. Mm-hmm. war nañu xool li ñuy délibéré. surtout surtout est-ce que askan bi di jëriñoo la. wala lu benn nit di jëriñoo surtout. mu doon lu am solo mais Moussa li ngay leeral ni dafa am solo te lii defe naa ni duñ ci yam parce que ñu gën ko yaatalaat mais tey jii bu may xool tey jii fii nii répartition des attributions et pouvoir de commune. nit ñi dañ koy dégg nii mais xamuñu lu mu doon. waaw mooy sànq rek li ma la wax. Mm-hmm. xam nga dama anticiper sa question. Mm-hmm. parce que dama dama di développer. man bëgguma ngay anticiper de. parce que lu ci dama ko war a laaj parce que li may laaj askan wi a laajal laajalu ma sama bopp. man mën naa ñëw gis Moussa Top mu wax ma li war a yëpp ma xam ko am na lu ma ci xam parce que quand même on n'est pas analphabète mais tey ji li ñuy laaj nii dañ koy laajal askan wi am na koo xam ne mi ngi toog xamul ci affaire maire dara xamul ci affaire conseil municipal dara xamul ci yëfi dara moom kooku la ñuy laajal question moo tax damay indi question yi benn par benn muy ñëw te benn bu ci ne da ko war a faram-fàcce kon donc da nga ñuy waay ki nga xam ne moom mi ngi toog te xamul lan mooy la lan mooy li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy répartition des attributions et pouvoir de la commune xamu ko waaw moom pouvoir bi bi bi conseil municipal bi am. Mhm. du pouvoir boobu la maire bi am. Mhm. du pouvoir bi bureau maire bi tamit am. du bureau municipal du pouvoir boobu la am. effectivement parce que bureau municipal mënuñu délibéré. Mhm. maire mu mënul def li ko neex. parce que municipal tamit dafa am fu mu yem moom it. ci lépp loo xamante ni lépp loo xamante ni génn cadre commune bi. génn cadre askan bi. génn cadre loi yi ak ak ak ak ak ak texte yi. conseil municipal bi mënu ci mënu ci mënu ci délibéré. kon moom am fu mu yem. Mm-hmm. loolu loolu la wax attribution yi. Mm-hmm. ku nekk am nga loo xamante ni yow yow yaa ko moomal sa bopp. Mm-hmm. maire en tant que maire moom lépp lu jëm ci wàllu emploi. lépp lu jëm ci wàllu fonctionnement. cabinet am yooyu yëpp. moo xool ki mu neex mu recruter ko moo xam mooy xool ki ko neex mu yë affecté ko fu ko neex. loolu pouvoir discrétionnaire maire la. loolu maire am na pouvoir boobu mais maire amul droit tabax benn ñaari brique te amul amul amul amul avalu conseil municipal bi. Mhm. Mhm. surtout. voilà mu doon lu am solo léegi Moussa man li ngay wax ni neex na neex goo xamante ni dafa dafa dafa jéggi dayoo. Mhm. mais juste démb damay gis démb on était le 25 décembre avant-hier ñu gis ni ci case des tout petits bi nga xam ne moo nekk au sein de la commune de Djiddah Kaw ñu gis ni tey xëy nañ ci médias y Sénégal yi diggante démb tey gis ñu titre titre boo xam ne neexuñu ñun. muy on a dit que ni euh, les les les responsables de de de de de de bon je vais pas des responsables de Cheikh dien le maire sortant qui est actuellement dans la commune. ak certains des membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar am na lu dox seen diggante ba ay sànni xeer ba yu kenn xamul am ca. est-ce que loolu tey jii yell na ci kanamu xale yi nga xam ni ñoom lañ doon defal arbre de Noël tey jii. waaw foofu man li ma ciy wax. Mhm. sama sama xalaat bopp laa ci indi. tout parce que àddina aussi àddina ba àddina sosoo ba tey. Mhm. violence doxalagul dara ci àddina. Mhm. te violence signe de faiblesse la. man kenn du ma mës sama gémmi te man def naa plus de trente ans ci politique bi. man bi wax yow nii par sociage la la la lañ ma nàmpatalee. Mhm. lañ ñu. lañ ñu nàmpatalee boobu ñëpp kay fa lañ nàmpataloo. nekk falaa nekk di ci daw di ci daw ba tey fii ma toog do ak mhm. nit du mës a dégg man si sama wàllu bopp ma génnee wax bu ñaaw jëmale ko doomu aadama. Mhm. même buñ bokkul camp politique man si may opposé damay opposé. d'une manière bu nga xamante ni critiquer pour pour critiquer déedéet. du ma xas du ma saaga du ma xeex xam nga kenn matul tey mën nañ dëkk mën nañ nit mu nekk maire ñu dénk ko benn commune mu am lu ko dénk mu am ay manquement yow en tant que le opposant mën nga ko décrier mais bu mu am saaga bu mu am xaste bu mu am xuloo bu mu am dara violence moom dañ ko war a bannir. Mm-hmm. surtout ci Sénégal. Mm-hmm. souvent nag fi nga xamante ni ñun dañu dëkkale wax bu ñaaw boobu banlieue banlieue violence violence. Mm-hmm. dégg naa ko ni ñu ko déggee nekk ma foon. mais ak fu mun jógee ak kaa mun jógee. loolu kenn rafetlu ko. surtout te ñu ngi euh, ñu ngi woo ki ko ñi ko def. à la raison que ñoom. ñu xam ne fii benn bis moo la tënk muy le 23 janvier. kese. su jeexee ki yàlla def maire. Mm-hmm. mooy gouverner commune bi. te ku bëgg ku bañ ci ginnaawam ngay ànd. nga bëgg nga bañ ci ginnaawam ngay ànd. te loolu la yàlla dogal. te gisuma sax bañ. Mm-hmm. parce que ñëpp ay frère lañu ay sœur lañu ay mbokk lañu. Mm-hmm. tey ñun ñii tax nekk ci terrain politique bi di xiroo ak a tey ku ci amoon safaan ñoo fay jiitu. allah muy man mu sama morom. man dégg naa ni ko déggee ñu naan ay lacrymogène bombe à gaz. pistolet génn fa dem nañ ba yegg ne actuellement le maire sortant Cheikh Dieye actuellement dañ ko mujj a évacuer yóbbu ko hôpital ndax lacrymogène bu fa déclenché wu xawma lu mu yëngal ci moom ci d'après li ñu gis ci média bi xam nga loolu du image bu ci ay xale surtout ci bu ñu nee case du tout xale yi daje fa ñoo xam ne ñoo war a doon tey ji royukaay yi ndaw yu ëllëg yi war a yoon yoon réew mi ñu def loolu ci seen kanam te ñu ko fa def ay mag yi xam nga xam nga man man lan laay déplorer mm-hmm. mooy xaw ma ku ko def de. Mm. parce que du ma nekk diw moo ko def. Mm. bu doon damay teg sama bët dama naan diw moo ko def. man man c'est pas froid parce que tamit ragal yëpp yàlla la. waaw ah, surtout. li ñuy wax la lumière. Mm-hmm. et l'obscurité ne faut pas se partager la même demeure maanaam dëgg ak fen mun ñoo ànd. du ñoo mës a ànd ci àdduna. boo ci teg rek yaa ngi trajectoire beneen mbër. Mm-hmm. boo jëlee dëgg nëbee ko fen kon yaa ngi lor. Mm-hmm. boo jegee fen nëbee ko dëgg tamit yaa ngi lor. kon man ni ko déggee noonu laa ko déggee moom laa ko gisee nii. Mhm. ci euh, réseaux sociaux yi. Mhm. mais ki nga mën a def na xam ne. Mhm. l'histoire retiendra. surtout na bàyyi ne moom xel am na njaboot. am na ay doom. am na ay mbokk te àddina dafa gudd tànk. trop xam nga li am ëllëg. kon damay ñaan au niveau national nag. seen réew mi yëpp. Mhm. ñu ñëpp nañ dem. le Sénégal en grosso modo mhm. xam nga chantier bi nekk ci àddina. Mhm. mooy le comportement. surtout politicien bu amul comportement bu baax comportement du sol ay ay costume. non non non comportement esprit la. c'est dans la tête. jomb naa def lii. bokkul ak rus naa def lii. jomb ak rus bokkul. xam nga looy rus mooy maanaam tey par exemple ma bëggoon saa si portable bi nga toog. bëggoo ku la ci fekk. xam ne bu ma ko jëlee gàcce bi daf fekk mooy rus naa def loolu parce que am na lu may sóor. bokkul ak jomb. jomb nag bu fa kenn nekkul mooy warul la bu fa kenn nekkul. nga wér ak yàlla ak yàlla nga xam ni kat man lii sama dignité humaine. waruma def lii waruma def lii. kon mooy li la war ak li ngay li ngay rus ak moo tax ñu bëri Sénégal dañu confondre lu bëri beneen conseil mhm. si ñi nga xamante ne ñu ñoo ko seq mhm. boo xoolee politique yi mhm. li ñuy lor innocent dafa bëri dañ koy sookee pare taxawee ne tooyee ne le doomu jàmbur yi ñoo ciy dee ñoo ciy gaañu ëllëg ay njabootam perte li may conseillé mm-hmm. mooy nit ku ci nekk da mm-hmm. nga xamante ni yow yow yaay sa moroom mm-hmm. pour defar rek jarul xëccoo jarul xiiroo jarul ŋaayoo élection commission la pour nga nekk nag homme politique nga war am ñii da war am souplesse da nga war am comportement bu clean maanaam nga nekk ni nga am crédibilité nga am transparence nga nekk nit accessible nga bañ a di génne sa gémmiñ kàddu yi yu tegginiwul nga jëmale sa moroom nit parce que kooku ngay ngay wax lu wala nga koy dugal ay vidéo wala nga ay saaga am njaboot mm-hmm. kon ñun war nañoo dindi loolu suñu biir surtout xam ne vraiment ñun ñëpp ay sénégalais lañu mm-hmm. ñu ñëpp ay Pikinois lañu. Mhm. ñun ñëpp ay waa Jidda Caaroy kaw lañu. waaw ah, te Pikine mooy gagné Sénégal mooy gagné Jidda Caaroy kaw mooy gagné nit kese gagné wul au fait. ki gagné yóbbaale na ñëpp. parce que mooy yilif commune bi mooy yilif comme niñ koy faral di. politique nag c'est le fair play man mi doxee yow nii j'étais conseiller municipal. Mhm. de a à 2014. Mhm. tey lakkal maire ñoom ñoo ñu gagné. en 2014. ñu leen di tamit di leen ba affaire bi amee ñu ñaanal yàlla mu nekk yéen bu oyof ci ñoom te bu la yéene woon safaan kon tey du nekk ñoom depuis deux mil seize di liggéey seen compte gratuitement ndax askan bi mën ci jariñu en tan que bénévole en tant que bénévole juste une foofu tamit mooy tey ji yow mi nga xam ne en tant que bénévole de 2016 à nos jours yaa ngi doon benn bénévolat di liggéey ci compte maire Cheikh Dieng tey bu ma la laajoon bilan bi nga xamante ni moom def na ko de 2014 à nos jours aujourd'hui lan ngay gis lu positif ngay gis wala lu négatif nga gis yow. bon avant may tontu sa question dafa am lu ma bëgg a leeral tuuti rek. Mhm. tey ba gisee ma nekk di liggéey ak ñoom côté état civil damay yoroon commission bi ñuy wax commission culture. Mhm. am na ma ko bokkaloon ñu def ci liggéey bu am solo. Mhm. ba dina caare am ci deux prix ay bourse Italie. ok événement boobu ñu ko doon defee à la ville de Pikine. Mhm. mu jëm ci wàllu couture. Mhm. dina caare ko jël deux prix yi Dalifort jël benn prix bi. ok doon ñam doon titre doon sac ci waaw doon euh, président commission culture dont je vais taire le nom may dégg. Mhm. nekk ci commune bi nekk conseil municipal. gis réformation yooyu mu côtoyé ñu pour ñu ñëw ensemble liggéeyandoo ci loolu ndax expérience fait la différence mm-hmm. en tant que patriote en tant que ku nekk ci goxam mm-hmm. bëgg a développement goxam mm-hmm. ma wuy sulet ci loolu ñu ma tàllal loxo bi ma ñëwee mu yóbbu ma devant le maire bureau ñu toog y avait d'autres invités ñu toog avec des propositions pour ma ñëw ànd ak ñoom liggéey ma j'ai refusé les propositions mais quant à que man am naa lu ma yàlla dénk ma nekk ci benn commune am fa ay mag am fa ay rak am fa ay jarbaar am fa ay doom bëgg ëllëg su ma fi nekkatul ñu mën a roy ci ñun may accepté ànd ak ñoom liggéey yàlla dogalul nag loolu antu parce que bon fu mu bloqué xaw ma parce que du ma du ma président commission mm. du ma conseil municipal du ma agent municipal ci laa ne comme que am na formation état civil autant ma dem état civil jaayante li ma am ci expérience li ma am ci xam-xam ma dolli ko ña fa nekk échangeante mën koo jariñe suñu askan surtout mais pour revenir nag ci sa question mm-hmm. maanaam doon na neex un conseil municipal en exercice mm-hmm. du mandat de 2014 à 2021 mun la wax mais lima ma xam man mm-hmm. te gis ko nga xam ne lu sa mbët teg la. Mhm. mooy la maire def na fi benn centre bi ñuy wax centre bu nekk fii Icotaf muy euh, centre bu ture tuddee le vieux Saloum Ndir. Mhm. gis naa aussi mu defar ay puisard ci mbedd yi mhm. na puisard yooyu antuwul. yooyu que non mais puisard yooyu moom bul ko tudd xamul tax. Uh-huh. parce que yooyu bu demee ba tax moom la maire moom jël ak commune am. di leen porter plainte au niveau de la tribunal kon puisard waruñu ko tudd parce que puisard yooyu moom yóbbu na ci ay nit ci yoon kon bu tudd puisard doonul lu baax doonul lu mu fi def. bon beneen bi mooy def na trois salle classe si école 27. ok ma lii concret laay wax. Mhm. am na xamante ne man mun ma ko maîtriser. Mhm. ay jox lañu diw lii ma ne kii bourse wala yooyu man mënu ma ko contrôler. Mhm. à part trois yooyu. def fi ay jardin public bi ñu toog di waxtaan ni tey ci la bokk muy ñetti yi ak bi nekk CFA ak bi nekk Jidda en partenariat avec de personnes xam nañ ci dara mais tey jii tey ji bu bi ma laajee positif wala négatif mooy tey jii moom budget bi nga xamante ni ñi ngi koy voté di ko jox moom mairie budget boobu noonu lan la ci defal askan wi tey loo xam ne mën nañ ci teg suñu bët wala ñu teg ci suñu baaraam loolu moo tax may laaj mais yii ngay wax nii Puisard nee naa la man j'ai été témoin mu porté ci nit ay plainte ci tribunal bu Canada bu Guédiawaye bii Pikine Guédiawaye bii lu ma fekkee. xam bi mooy. Mhm. beneen bi mooy jardin yi ngay wax ni mhm. il a été en partenariat avec des avec ses partenaires malgré moo ko liggéey avec ses partenaires mais ay partenaires lañ mais avec le budget de l'État qu'est-ce qu'il a fait. waaw moom laa lay dégg xam nga xam nga xam nga man tuuti damay wax rek. Mhm. damay bëgg ëllëg suñ ma interpellé ma waxaat li may waxoon. dama ne li ma gis man sama bët. ci ay conseillers municipaux que le budget day varie entre neuf cent ak neuf cent cinquante millions par année te le mandat s'arrête cinq ans. ay dérogation yi président. presque un boo xamante ne fi ne bi gis dérogation bi président indi woon moo tax ñu dem ba en deux mille vingt et un mais deux mille deux mille quatorze. deux mille dix neuf heure yi war fekk ñu. cinq ans la woon ci yoon. Mhm. mais on est à au ou huit ans actuellement nii. voilà bon loolu daal laa gis lu nga xamante ne lu concret la. Mhm. toujours nag ñi ngi réclamé. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo ko dénkoon suñu alal. Mm-hmm. ñi ngi réclamé que normalement sax non bu ñu la dénkee benn mbir balaa ngay laajaat mbir moomu da nga a kat li ngeen ma dénkoon kat. war a lii def naa ci lii def ci lii def naa ci lii la toll def naa ci lii def naa ci lii def naa ci bu doyee askan bi ñu la dolli ñu bu doyee askan bi ñu sanctionné la mais mënu la jox ñu la jox benn mandat boo nekk cinq ans nga dem sept mm. nga jeexal mandat boobu. bëgg naa yem beneen mandat te yow waxoo ñu ma li jëm li nga fi def lan ak lan ak lan la. léegi na askan wi ci nekkoon falaat ko rek ñu xool. Euh, foog naa du yomb xam nga du yomb. Mhm. parce que tam nit ñi duñu ay dof. Mhm. nit ñi dañoo yeewu. xam nga tey maa ngi sànq euh, tudd nga ko sax muy le président Modou Gueye. Mhm. moo jox leen benn historique lu ko indi ci politique. li tax mu dugg ci politique. en 2011 boobu mbënd mi métti na trop. man j'étais man j'étais conseiller municipal. dina kaw ndox mi nangu ko partout. Ah suñu kanam. moom en tant que ku dëkk jëla caare kaw amaa ah, ngi dégg des fois ñu naan ku fa dëkkul duñu jiite. moo bëgg mu leer tey ñëpp xam. Modou Gueye le président Modou Gueye mi ngi juddoo ngëmba ngéewul fa la juddoo mm-hmm. mais fii la màggee. fi la defee léppam seen kër moo nekk villa 232 Aïnoumane 3 ba nga xam kër Baye Modou Gueye c' est le villa c' est la villa 232 Aïnoumane 3 nekk au cœur de Djidah Thiaroye Kaw mm-hmm. pire mm-hmm. man de doon ruus man doon naa ruus mm-hmm. ñu ne saam mi kat dëkk fi te saam lu fi dee moo ko rey man doon naa ruus loolu xam dëkk ku koy tiitaroo sama dëkk sama dëkk hmm. dafa am na leen lu gën lu gën a neex lu dàq tiituru bi hmm. mooy nga jariñ fa nga dëkk ah que man man damay wax ne moo Gueye du politicien man personnellement c'est ça que je me dis non du politicien c'est un acteur de développement wax ci 2011 bi ci la toog mu ne vraiment man en tant que jeune hmm. yàlla may ma teraanga ma bokk ci koy boo xamante ni domini la am ay néew doole mbënd bi du ma xaar état du ma xaar kenn ma damay xool lan laa ci defee sama participation ci la ay nit ñu dem recenser ko deux cent familles je pèse bien mes mots mhm. archive ngi fi mhm. deux cent famille mhm. ñu dem recenser leen ñëpp nekk ci biir ndox moom du doole keseem poche bu keseem mu ay xaritam woo ay dëkkandoom ne a ah, vraiment idée bi laa am kat pour dimbali ñu nekk ci mbënd mi am yére indi ku am dàll indi deux cent familles yooyu sa mbër moom may maa ngi toog cérémonie bi école six la woon. Mhm. mu defal leen fa bâche. famille bu nekk am nga xaalis valeur de vingt mille francs ci deux famille. Mhm. am nga ceeb am nga diwlin am nga yére am nga dàll. Moussa da nga fàttali ne boobu man man Baye Fall bi maa daan segg café Touba gi di leen ko jox ci weeru. macha allah fàttewuma lool ci biir école yi ci biir classe lañ dëkkoon. ci l'école nag nit ñi nekk yow vraiment idée yi nga am ak yéene yi nga am da nga war a politique mu man du ma politique. parce que politique bi ma gis léegi dafa bëri dafa bëri. wax lu dul dëgg. fu mm-hmm. bëri wor. Mm-hmm. te man yarewuñu ma noonu man yarewuñu ma noonu. Mm-hmm. te tamit nit loo ko bañ bañ bañ bañ. lëg looko bañ bañ bañ nii dafa gudd ay nopp. dafa mën a daw. ndax bi moom bi mu bi mu génnee ENA. en 2005 nekk major. dem France jàngi. boobu yaay mi ngi jaay fii ay ndambe. gerte caaf gerte xot mhm. mu dem jàngi ñëw ci li ko yàlla may te yàlla mooy may doomu adama bi mhm. mu ñëw première personne bi mu am impôt domaine comme inspecteur principal mooy poste CGE ba gestion des grandes entreprises mhm. kooku boo deful sept ans de service sept ans mënoo ko ko gérer ba mu nekk première personne kon am na fu am na dayoo mm-hmm. am na dayoo bu mu am mm-hmm. loolu moo ko dugal ci politique mu dem fi ay élection 2014 ñàkk mm-hmm. dem fi présidentielle dem fi législative ñàkk lépp taxul mu bàyyi lépp taxul mu bàyyi ci la gën a nag génne dooleem ay effort am di ko def ci population yi di dimbali doomu aadama yi li gën a récent mooy école 6 bi ngay gis nii ses propres moyens dafa centre informatique de de génération. Mm-hmm. ñu war ko le 4 janvier incha allahu rabbi. non mais Moussa boo paree loolu da ngay da de da ngay fay pub service commercial. waaw loolu. non da ngay fay pub service commercial loolu dafa nekk li nga xamante ni. <laughs> information la la population la communauté. de Djidah ñoo fay jàngee surtout. te soo gisee mu def fa loolu. Mm-hmm. chaque fois da nga koy dégg ci discours am. Mm-hmm. mu ne man bëgg naa ëllëg. fu doomu waa Sika bi wala waa Fann Résidence waa Almadies di compétir ak waa Dina Thiaroye kaw wala waa Pikine di main général du leen yóbbul dara. surtout parce que ñee ku ci wàcc yaa ngi sa tablette. Mm-hmm. yaa ngi sa ordinateur. Mm-hmm. yàlla dogal nag li mu dogal si suñ gox yi. Mm-hmm. ñu ay gox yu néew doole. kon képp koo xamante ni yaa ngi ciy jaayante. jaayante woo ak sa bopp. askan wi ngay jaayanteel mhm. askan wi ngay jaayanteel yàlla allah mu doon lu am solo Moussa waxtu wi xoj nañu dëgg dëgg li ñu war wax yëpp xam naa ne xaju fi mais dañuy utaat beneen jotaay mu gën a yaatu mais juste rek bu ma lay laaj tey ji euh, dernière question bi ñu tënkee ko émission bi jotaay bi tey ji mooy tey ji en tant que euh, leader tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la commune de Djiddah Thiaroye Kaw muy Modou Gueye nga xam ne bokk nga ci mouvance am mhm. doon ci tam un quelqu'un Eh, moom itam ñu ngi koy jox cëram ñu ngi koy jox wàccuwaayam ñu ngi koy respecté ñu ngi koy saluer aussi de passage parce que xam nañ ko man na personnellement damay jox ko ak moom ci lu bëri bëri mais hiérarchiquement ak administrativement ci li mu nekk nii xëy na peut-être loolu du ma permettre sax tey ji mën a jóg def li ma war a def moom tey ji moom ban programme moom ak coalition bi ngeen nekk ngeen nasal tey ji askanu Djiddah Thiaroye Kaw pour une réussite meilleure de demain waaw dinaa cof tuuti rek. parce que programme boo xamante ne gaa yi tëj bi ci liggéey. Hmm. te dañoo am ñoo xamante ne dañoo ñëw béjjén. tam hmm. nga gis sa programme nii. ñu ko rek yow boo junjee rek après. waaw mais dinaa ci laal quelques points. Hmm. bi ci jiitu mooy. innovation la. surtout moom nee na bu yàlla dogalee le 23 janvier askan bi jox ko seen baat li muy njëkk a def. mooy dina institutionnaliser maanaam. gestion municipale bi maanaam mandat cinq ans yi. Mhm. du ñu xaar ba cinq ans yi mat nga ñuy defal bilan. mais chaque année. dañuy def bilan. de janvier à décembre day def bilan populaire populaire bi dañuy woo ñëpp askan ñëpp ñu toog ñoo xam fi ngay defee ne ah déggoon ngeen ñu un million pour année bi. ñu def ci lii def ci lii ci wàllu santé def ci wàllu éducation def ci lii def ci lii def ci lii la ngeen dénkoon kat matul jeex na wala boog la ngeen dénkoon kat fii lañ ci toll lii moo des mu nekk lu transparent lu askan yëpp mën a gis mhm. ndax askan bi aussi ñooy nat seen xaalis ne kat yow suñu programme doxalal ñu mhm. kon dénkaane su loo ko dénkee bu dee seen ci dara war na nekk lu transparent mhm. muy un mu ne moom yàlla suturaal na ko ba li mu am mën na ci dund moog njabootam waaye yemale ko ci njabootam mais da ko yemale da koo génnee seetal la ko ni képp koo xamante ne xaj nga ci parce que burangu dajul suuf ba loolu tax na moom ci biir programme am mu ne su ko yàlla joxee mairi bi salaire u mairie pendant cinq ans ak avantage yi mairie di ko jox yëpp dala na ko askan bi surtout dégg naa comment mooy dina xool benn agence financière mu jël salaire cinq ans maire ak avantage yi doo ko ci banque am fa caution di mën a financer formation des jeunes di mën a former formation des femmes. Mm-hmm. am solo si programme toujours bëgg na chaque école bu nekk si commune bi muy privé muy muy muy muy public mu def benn salle informatique de géné de dernière génération. pour suñu doom yi mën a am accès ci nouvelle technologie mm-hmm. te c'est le moment te ci lañ toll. fi lañ mhm. loolu dama ko junj noonu rek. Mhm. mais programme am romb na foofu. Mhm. macha yi ngay dégg si gis nii. mais moom lim ci lim ci wax keroog dafa da dafa yéeme. bassin yi tey dafa war a nekk loo xamante ni moom moo war a yor commune bi. en faisant quoi mais bassin ndox la. ah oui. mais ndox moom mën nañu ko utiliser am ay jet mais lu fi baax ndoxoo ko baaxal. lu fi baax ndoxoo ko baax euh, euh, mun na mun na dindi loolu mun na fexe ba mun na tax ba insécurité bi dañ fa. Mhm. tey bu ñu ba bassin bi aménagé ko ba mu rafet. dafa ay restaurant comme nii. Mhm. dafa ay hôtel. Mhm. dafa ay ay ay ay salle de conférence. mais foofu nit ñi dañ koy donc loolu avantage commune bi la mu ci am ay ay ay ay dépenses ay recettes. mais boo xoolee bassin yi source agression la nooyaat. lëndëm na lëndëm na. tilim na tuurukaayu mbalit yi. xam nga loolu tamit bokk na ci programme am. Mhm. pour wax la rek ni la mënu ma wax lépp. Mhm. junj bi rek dafa dafa dafa am solo. le huit. Mhm. janvier yàggutul. ouverture de de la campagne électorale. te dina étaler programme am. incha allahu rabbi. te ku xam président Mor Gueye mhm. xam ne du nit nit kuy kuy tattane mhm. surtout kuy tattane de déedéet <laughs> macha allah Moussa am na solo am na lool mais gannaaw waxtu yu xoj nañu uh-huh. lan mooy doon tey ji fi mu toll nii message bi nga xam ne yaa ngi koy lancé à travers la population sénégalaise plus particulièrement la population de de notre sainte sainte localité muy la commune de Djiddah Thiaroye Kao ak sa kaddu yu mujj yi ngay tàggatoo ñu jeexalee ko jotaay bi waajaat yeneen ko parce que li na ci suñu programme ci suñu kanam bëri na wax nga ko léegi la programme am na le 8 début de du campagne kon est de suite am na jotaay yeneen yoo xam ne mën nañ ko am mais comme tey coulisse politique bi li mu tënkoon nii rek nga jox ñu message bi askan wi dégg ko bàyyi ci xel waajal tam bis yi ne suñu kanam ak xew-xew yi ne suñu kanam ak dernier mot yi ngay tàggatoo ñu loolu yëkkati jotaay bi. waaw euh, fi may may tàggoo askan bi xam naa si ñetti point lay waaye bu ci njëkk mooy la vérité dañuy wax yaa y' vérité deux vérités man dama ne y' a deux vérités mm-hmm. lesquelles y' le mensonge qui est vérité mais il éphémère mm-hmm. et la vérité réelle mm-hmm. qui est éternelle maanaam ñun ñi am ñoo inspiré def politique jiite ay nit non war nañoo war la bon exemple surtout ci ñaar ñuy wax dëgg. suñu mm-hmm. askan. Mm-hmm. benn bi ñuy moytu acte de barbarie yi ñuy def suñu kanamu doo njaboot yi. Mm-hmm. maanaam saaga xeex jamaate rayaate. yooyu dañ ko war a bannir. dañ ko war a suñu mooy premier point bi beneen beneen bi si topp mooy lu ñëpp bokk dañ koy pencoo. mais kenn du ko paacoo. bi gën a nag tax ma ma gën am lu may lu may naqari mm-hmm. di may géral ci Sénégal mm-hmm. mooy la gestion clanique bi nga xamante ni moom la suñu njiit di jiite mm-hmm. maanaam bu la dénk benn institution nga bu ko def gérer euh, euh, une gestion clanique et familiale maanaam man. bu sama jabar samay doom nangam nangam. loolu li gën a tax Sénégal ci la bokk. xool nañu ay far la ñuy xool. kii ah, laa bokk sénégalais bi jooy les les hommes qu'il faut à la place qu'il faut looloo fi am. li ma lay li ma lay mën a wax daal. Mm-hmm. pour finir comme que temps xooj nañu. Mm-hmm. dafa am benn proverbe buy wax. Mm-hmm. te ni ku nekk war nga doxee loolu. la valeur la valeur valeur ñu ne c'est la valeur qui connaît la valeur d'une valeur et qui en valeur une valeur. maam nit. su bëggee am valeur non day jox nit ki mu ko prochain valeur. te xam valeur bi mu koy jox lu mu doon valeur bi mu koy jox. bu ëllëgee valeur bi dina mën a doon lu mën a xam yow ndax am nga valeur am nga valeur macha allah roy très beau proverbe. est-ce que dégg nga lu baax. Mm-hmm. ba pare ñu moytu lii lii ñuy wax. Mm-hmm. xam am am tubaab wax mu ne mieux vaut d'être abattu par la vérité que d'être torturé par le mensonge. yàlla yàlla musal ci loolu. alhamdulilah musul ci mboolem di kontaan naa ci waa salaam Vision. Mm-hmm. li ma ko woon ci njëlbeen ba. Mhm. Euh, yàlla dogal na waxtaan nañ fi waxtaan bu bu am solo. macha allah. dina am ay manquement nag parce que loolu bett mën la. lépp matul sax aussi temps bi xëy na. Mm-hmm. te décentralisation dafa yaatu. yaatu boo xamante ni. Mm-hmm. Mm-hmm. ba weer bi doon tamit. duñ ko jeexal. dinañ ci gën a nekk rek géej mën nga cee bay ba doyal. mën nga cee napp ba doyal. kon euh, di leen jaajëfalaat. di wax yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbil li ñu jëm muy ay élection kese la. day jeex beneen day ñëwaat. day te képp ku yàlla tudd na yaay nekk maire. alaakulli alin yaay nekk maire. impérativement kon ñu dem ci ak dal mm. dem ci ak respect ak sago ak xel mm. vraiment jox suñu doom yi mm. nga xam ne ëllëg ñoo espéré yi ñoom it yor li ñu yor ay ay ay ay ay ay lenge yu set bañ am benn sang ñu war a ñu ñaan yàlla ñu war a ñu def zéro zéro incident macha allah mun na nekk bu dee programme rek la ñuy présenté askan bi daf naa ni jarul doole jarul xeex jarul xuloo jarul xeex xool asamaan mhm. jarul buuxante buuxante jarul ko déedéet foo nekk mhm. lii laa bëggal commune bi kene lii laa bëggal commune bi askan bay xool bi leen ci doy mhm. ñu ne kaay defal ñu yaa xeeti mbalaani kon vraiment jarul dara jarul dara te ñu ñëpp ay ay ay ay mbokk lañu xama ñu ñëpp mbokk lañu nañu jàppaloo ci benn nekk benn ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba tamit suñu commune bi nga xamante ne tey vraiment mi ngi ci lëndëm mm. yàlla yóbbu ko ci leer goo xamante ni day bokk ci commune yi gën a leer ci àddina di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Moussa Top ci waxtaan wu am solo bi jërëjëf encore ci temps bi nga ñu may ba ñu mën a toog weccoo ak yow kaddu ndax xam nañ ni euh, a bëri na lu la tënk loo xam ne sa jot mayu la ko waaye jërëjëf encore tam ci leeral bi nga xam indil nga ko tey ji population bi nga xamante ne tey ji wax dëgg yàlla wala sénégalais yi nga xamante ne peut-être am na lu leen umpoon wala lu leen réeroon ci biir li xam ne mooy administration communautaire macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yow itam mbooleem sa bëgg ak sa yéene yal na yàlla jàppandalal lépp ba nga atteindre objectif bi nga xamante ni moom nga soxla plus particulièrement ak coalition bi ngeen nekk ak mbooleem koo xamante ni rek mi ngi xëccu ndongo taam ci biir réew mi na bàyyi xel message bi nga mujj a wax léegi xam ni toujours c'est Sénégal qui gagne toujours c'est la ce sont no propres communes qui vont gagner kon dafa am solo lool kon jarul xeex jarul xuloo jarul dóore jarul saaga nañ leen boole suñu bopp boole suñu xoli yi boole suñu yéene xam ne kenn ku ci nekk bu fekkee la muy woote ndéem dëgg la mooy lu jëriñ askan wi rek moo la tax a jóg kon defe naa jarutu dara sant itam bu baax a baax téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñuy suivre à travers Salam Vision di am mbégte ci ñoom di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ndax bu leen neexoon seen connexion yi mën nañ dem seeti leneen lu leen neex wala leneen lu leen intéressé mais buñ ñu taamoo di ñu seetaan kon am na lu tax ñu taamu ñu di ñu seetaan kon ñoom war na saa su ne ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lépp lu seen bëgg ak seen mébét ak seen yéene yàlla na yàlla sama borom bi dul jeexal dara jàppandal lépp ci dara yonent yàlla Muhammad alayhi sant bu baax a baax équipe nga xamante ne ñoo géré réaliser émission bi ba mu mën a jàppale suñu beneen numéro ak les coulisses politiques sur Salam jërë ngeen jëf wasalaam peace and love Bienvenue sur Salam Vision.